sa problème la xam nga kon bu demee ni mu war a demee kon kaal bi fu mu fu nga war a doo ko am te man tey sax damaa kontaan lu tax ma kontan comme sa ji artiste ni mu jógee foofu ba seen liggéey boobu ñëw fi di laaj baykat yi seen jafe-jafe loolu rek rek jar na kontaan sax fekkee ne sax defu dara sax loolu li def noonu rek jar na kontaan mbokk yi eh, yéen a déggandoor boobu waxtaan ñu dal di am nag eh, kii di Fatou Dramé fii si suñu studio bi mu toog nag eh, ci jotaay bi nga xam ne moom la def ak Sira Cissé mu laaj ko lan la xaal am ci wér-gu-yarami doomi aadama xaal lekka la bokk na si xeeti lekka yoo xam ne baax na si yaram baax na si wér yaram ndi xaal dafa xam ne yooyu la wax vitamines am na vitamine E am na vitamine C ba pare am na potassium soo xool dafa nekk loo xam ne am na njëriñ si yaram bi li soo seetloo lekka ñu ngee lekka pour suñ maagaay dem ni mu war a demee ñu ngee lekka tamit pour ñu mën a euh, aar suñ boppa si feebar yi seew te xaal bokk na si xeeti lekka yoo xam ne daf ñoo dimbale mu mën a aar yaram bi euh, feebar yi sew yi ñu dee moom bari na sukkur gis nañ ne bari na sukkur ndax du joxe feebar yu sew mbaa diabétis parce que sukkur bi bari na fa. waaw dëgg la wax ne diabétis sukkur moo ko dee def. Mm-hmm. ndax moom boo ko téye. dëgg xaal bari na sukkur mm-hmm. soo ko seetloo tamit bari na ndox moo tax dafaa dëgg la wér gu yaram surtout ñoo xam ne am nañ yaram. Mm-hmm. mun nañoo di lekk xaal bu bari ndig soo seetloo di si nekk si ndox dafa bari. ci li nga wax ne si sukur ndax bari na sukur ndax sukur boobu du joxe diabetes diabetes nekku ne lekka sukur moo ko dee joxe. Mm-hmm. diabetes benn dafa nekk si sa um, famille bi. Mm-hmm. nga mun koo doona. Mm-hmm. diabetes mun nga koo am tamit su nekkee ne noppaleku bi ëpp na. nga dajale yaram. di lekka uh, sukur bu bëri. di lekka ay diw yu bëri yi nga xam ne dafa nekk buñ dajaloo ci sa yaram bi dafaa nekk faat ba pare yow doo yëngatu yëngatu boo xam ne danga mën a tasaare faat yooyu noonu mm. yooyu tamit mun naa tax nga am ko waaye lekka sukkur rek warta mun a tax nga nekka euh, nga am diabetes waaye su nekkee ne dem nga ba am nga feebar yooyu noonu mm. kon nekkul ne war ngaa ñàkk a lekka xaal ni soo seetlu wax naa la ne xaal dafa bokk si xeeti lekka yoo xam ne daf laa dimbale xeex feebar yu sew yi ah, kon yaram bi soxla na ko euh, daf dee faj am na lu moo faj si because dafa am vitamins and minerals soo seetloo lekka uh, xeeti lekka yi ñu ngi leen divide si five fànna yaa ngi am carbohydrates yaa ngi am um, proteins yaa ngi am fats and oils yaa ngi am vitamins and minerals te moom dafa bëri si si yooyu so daf la dimbale yaram bi uh, aar yaram bi feebar yu sew yi nga xam ne ñoo yooyoo fi nekk bokk na ci ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy béy seen waar ci aar bi Mamadou Sabali mu ngi liggéey waaye naka am na lum ci rax muy bindam bokk mu toogoon naka ak kii di Ramatoulaye Diallo mu laaj ko ci métier bi nga xam ne moom la moo yëngu. yàgg naa binda depuis mun naa wax ne boor yi di 2000 2001 mm. door di binda pour newspaper si mainly Daily Observer waaye nag am lu fi xewoon si Gambia li nga xam ne musuta xew si dëkk bi mm. mooy dëkk bi dafa amoon university in the year two in 1995 mm-hmm. mooy bi nguuri nguur gu ees bi ñëwee nguuri Yaya Jammeh bi mm-hmm. ñun ndaw yi daan jeexal school duñ mën a dem university because amuñ opportunity wara suñ suñu waajur yi amuñ woon koom-koom bi pour feyal ñu mm-hmm. duñ daan am that opportunity yàlla def bunta boobu ubbi yàlla wërsagalo boole si first batch bi dem si university boobu ñu jeexal in 1999 man ma gis ne nag loolu history la bi nga xam ne war nañ koo binda mhm. pour dencal ko suñ doom yi ak sen set suñ set yi mhm. ñew mhm. so motax mah ma binda book bi jàngi jolof MMOA on the Gambia's first university program, nekka rek suma experience si university bi ak fan la joggé ak university naka la ulbatekoo suma dunda bi def ma yalla dimbalé ma ma ci yoni teki, di mun dimbalé suma wajur itam den book bi ma publish ko in the year mm. mooy di uh, book bu mujjeel waaye yaa ngi wax ne uh, book bi mu ngi mel ni daanaka sa àdduna la mm-hmm. mooy sa dooreen sa taami xaleel mm-hmm. ba bi nga jàng bay jeexal university lan moo la sas ba nga war a bindale mu di saabale ni ma ko waxee woon uh, lii story la bi nga xam ne li fi am la li nga xam ne musut fee am mm-hmm. so ma gis ne lii suñ ko bindutee dafa nekk taarixa bi nga xam ne dafa riir mm-hmm. so ma gis ne tam su ma bindee lii mm-hmm. won ndawi Gambia yi mm-hmm. man fan laa jógee di jëm fu ma jëm xëj na mu tax ñoom tam ñu am ambition boobu pour xam ne jànga mun naa tax mu wecci sa àdduna teg la si yooni tekki waaye nag fu mu nekk yaa ngi génne beneen bugg boo xam ne Yanaka for the Gambia, the national anthem. Mm-hmm. Ah, nga jagle ko president bi. Mm-hmm. Lan mo la xiir ci li? Ah, Fata Gambia suñ national anthem bi mm-hmm. yaakaar naa ne ñaan la bi nga xam ne walaay ak luñ tuuti tuuti suñ dëkka bi. amul benn dëkka si àdduna bi. bu am national anthem. uddaaxa suñ bos mhm. si rafetaay woy bi mhm. ak si di fat ne mhm. ñun suñ national ante bi yëpp yàlla lañ nekk di ñaan pour mu dimbali réew mi ñu jëm kanam euh, am peace and stability waaye message bu fa nekk nag comme poème la taalif la foog mu am foog ñu foog ñu dugga si biir gën koo leeral nit ñi ñu gën koo appreciate so président Jammeh nag mus na see def speech Benja July 22nd celebration the whole speech bi def was about the national anthem pour won nit ñi lu fa nekk si national anthem bi ne ñun ñëpp suñu waree dugal message bi bi suñ dunda bi mm-hmm. Gambia dina mun a achieve suñ goal si si waxtu bu waxtu bu néew mm-hmm. so ma gis wax yooyu ma gis ne daal kon am na solo mm-hmm. pour comme que man ndaw laa si réew mi ma jël national anthem bi ubi ko si suma halat jël fa ay exemple yi nga xam xalé yi nañ mëna relate ak exemple yoyu pour inspire len ne happiness happiness moy contenté waaw waaw lan mo la kontaan lo ba nga bind happiness waaw the way to happiness mom, ay bindala la yu ma xam yu ma def la si duri foki foki at mhm. depuis bori 2002 mangé binda ay essays mhm di di binda suma halat dal si mhm. yefi Gambia in all aspects of Gambian mhm, life mhm. why dal daal way bi yëpp mooy naka la nit di def pour meuna am contenté si sa dunda parce ah. lu ñoo def aduna si de whether dangaa o de nga dem play football nga setani movie nga dimbalé ay nit li nga out rek moy contenté moy happiness bi waaye unfortunately nak yombut pour nit am ko so mota tax essai su binda yëpp for the past 10 years jele ko nak mainly man suma own experience ak ay téere yu may jànga including alxuraan bi ak bible bi yëpp messages yu ma fa jànga yëpp mm. yi nga xam ne foog naa ne nit su ko usee mm. dina mun a attain kontante bi ñoo ooyee happiness mm-hmm. si ay different essays yu bari nag mm-hmm. te dama dee try tam su may binda mm-hmm. maa see dugal suñu aada bi tam like naa ne nekk di binda english ma jël ay la baati olof duga fa ay proverbe si mm-hmm. soose duga fa mm-hmm. binda ko si olof nag ba pare translate ko in english moo tax suma benn baay moo doon waxtaanal benn bés mu ne ma sa essai si dañ dee neex nag dañ dee mel ni càkkri waaye olof yi ngi si dee dugal moo dee nekk réesin bi <laughs> càkkri moom neex na <laughs> mm-hmm. fan naa ne am nañ a culture and a history bi nga xam ne it's it's very rich waaye ñun dañ ko dee underutilize so moo tax may su may binda may make sure ne ma tiba si aada bi ak xalaati mag yi boole leen si ak angale bi ñu ne mag baax na si dika exactly so that ku ko read rek mhm. te gambian nga mhm. di nga mun a relate ak loolu waaw loolu am na solo ah, waaye léegi ñu ne instant success mhm. mooy mooy moom bug bi lu mu ëmba yëpp mooy ay fukki fukki kaadu daal fukki stratégie si nga xam ne ku ko toppa di nga war a am tekki waaye lii suma jubluwaay mooy pour wax ak ndawi réew mi pour ñu xam ne ak luñ mun di xalaat seen buga buga pour seen boppa seen waajur yi ak dëkka bi mun nañ koo am waaye dañ koo teg si yoon am nga xam-xam yàgg na fi waaye dañ dee wax ne xam-xam pour sala bu rot xale mun na koo for mag mun na koo for man nag foog naa ne suma dunda bi mm. depuis bu ma demee ba nekka mag ay twenty twenty two years mm. lu ma doon jànga yëpp mooy pour ut ay yoon si research yi nga xam ne nit su toppee yoon yooyu dina mun a tekki yooyu laa jël nag ma def ko si book bi def ko mu em nag pour ki nga xam ne xam nga nit ñi dañ dee tayal léegi ku ko jànga si ndaw yi di nga mun a gis ne waaw lii dee xam-xam la bi nga xam ne su ma ko toppee mhm. parce que léegi-léegi nga gis nit bi nit ki dem dem bam mhm. discourage mu lose hope si life am mhm. waaye loolu yëpp ñàkk xam la parce que soo seetoo gestu xam-xam yi nga xam ne mu ngi fi. Mhm. maam yaa ngi ko fi bàyyi ak mhm. borom xam-xam yi. Mhm. soo ko toppee dara rut laa jaaxal si àdduna. yooyu laa def si book bi. waaye nag ba léegi ñu am fi li nga xam ne mooy love notes. waaw poème si. waaw love moom si aduna bi mooy yëpp. parce que soo gisee.